amnistie bi nga xamante ni njiitu réew mi président Macky Sall doon na ko sàkku ca conseil des ministres bi nga xamante ni moo amoon ndiki àllarba bi ñu nga xamante ni mooy Aminata Touré moom daal dina cee àddu joxe ci ab xalaatam waaye itam ab bi nga xamante ni moom la ci fas yéene jël bu loi bi daal di dem ca pencum ndawu réew ma moom Aminata Touré nag nee na àndu ci benn yoon ndaxte bu ñuy setal ay jëf la ñuy setal waaye duñu setal ay nit moom njiitu jëwrin yowoon Aminata Touré nee na nag lii du lenn lu dul ab dil politique politique ndax téeméeri junniy baat yi nga xamante ni moo nekk ci ndoddum may sa waad moom la njiitu réew mi daal di bëgg a lewal moo tax mu daal ni daf leen a bëgg a seetal moom ak Khalifa Ababacar Sall. ba na moom àndu ci benn yoon kon nag mënees naa jàpp ni projet de loi bii nii nga xamante ni moo ñeel xalifa Khalifa Ababacar Sall ak Karim sa Wade bu fekkee ni yóbbu nañ ko ca pencum ndawu réew ma kii nga xamante ni mooy Aminata Touré moom noo lay laa di voté maanaam àndu ci benn yoon tey jii nag waa Y'en a dañu daal di organiser ab marche ca fee ca place de la nation lu waxal bi la marche nag mooy daal ñaxtu ak di naqarlu téye gu yàgg gi nga xamante ni téye nañu ko seeni ñooñ mu bokk ci Cheikh Oumar Diagne Papito Kara Ousmane Diagne ak ki nga xamante ni mooy Abdou Karim Gueye di Karim Kouroukhar dañu doon wax ni ak wérgu mam fi mu toll nii dafa daal di xaw sutante loolu nag moo waral ñu daal di def li nga xamante ni moo di boobu marche di xamle nag ni yàgg na te it jaarul ca yoon waaye lu ci mënti am dinañ si dellu siwaat ci ay xibaar ginnaaw bu ñu ko teewloo ba noppi. di lañ leen andiloon ci xibaar ñu di leen jaajëfal.